salaamaaleykum à euh, tous nos amis internautes de votre site TV c'est toujours plaisir di ànd ak yéen ci seen i différentes émissions rawatina émission bi nga xamante ni ngi tudd gisee ak la rencontre avec alors gisee ak nag tey ñoom mbégte wu dalal ki nga xamante ni moom mooy monsieur Saourou seen euh, conseil spécial à la présidence de la République tey moom la ñu am mbégte dalal seq ak moom waxtaan sababu waxtaan bi nga xam ngeen ni président Macky Sall daal di nay wax ni moom euh, ni du bokk ci li nga xamante ni mooy élection 2024 yi ban appréciation la ci am biir lan mooy avenir euh, benn Bokk Yaakaar loolu bokk ci lu ñu war a waxtaanee balaa loolu nag dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ko waa Sans Limites TV ñu ngi lay nuyu monsieur Sène di la ziar. mais eh, merci beaucoup monsieur Ndiaye mm-hmm. merci de l'invitation maa ngi lay mm-hmm. ziar bu baax di ziar euh, internautes yëpp yi nga xam ne ñu ngi seetaan sans limite et surtout gise ak mm-hmm. euh, profité occasion aussi baalu sénégalais yëpp ak ci bés bu mag bi nga xam ne foofu lañ jógee muy bésu tabaski di ñaan yàlla lañ ko fekkee ay déwéni déwén euh, Sénégal def yàlla def jàmm ci Sénégal d'accord alors sama première question bi mooy xibaar bi en tant que ku bokk ci ñi xelal président euh, président Macky Sall. Mm-hmm. est-ce que jotoon ngeen ci waxtaan yéen mm-hmm. conseils yi ak président Macky Sall. ci mm-hmm. ci déclaration bi ci décision boobu noonu. waaw pour dire vrai le président Macky Sall comme ni ngeen ko xamee c'est un grand homme d'État. dafay am yoo xam ne euh, moom moo ko moomal boppam. ndax li Sénégalais fàtte mooy candidature à la tête d'un pays loolu dafa nekk une décision boo xam ne ça ne peut que être d'abord décision individuelle. alors loolu moo tax euh, boo leen fàttalikoo président Macky Sall yàggoon na wax ni moom. bu defee deux mandats dafa verrouiller la constitution. donte l'actuelle constitution boo ko càmbaree. teg ko ci droit bu ko neexoon mu présenter troisième candidature. parce que depuis 2016 la bind conseil constitutionnel ne leen comme da comme dañu changer constitution def. de mandats de cinq ans. Mhm. dama bëggoon mandat bi nga xam ne dañ ma ko fal mu nekk sept ans ñu wàññil ma ko def ko cinq ans bu ko defee deux mille dix neuf bu ma nekkee candidat rek jeex na wante nag conseil constitutionnel moo ko ni mandat bi nga xam ne dañ la ko fal sept ans mënul bokk. ci décompte bi mënoo ko wàññil sa bopp non plus donc loolu moo tax ñun ñu jàppoon ni effectivement waroon na mën proposer candidature am en deux mille vingt quatre bu ko defee bu ko sénégalais yi mais mu exercer le pouvoir wante nag encore une fois de plus un homme d'état exceptionnel. vraiment koo xam ne moom constance am ak bëggam ci Sénégal ba mu bind ko sax ci téere wone na ni wax dëgg nit ku am fulla la nit ku am fayda la nit koo xam ne xalaatul boppam mais Sénégal moom moo ko gën a ñor moo tax aussi. bu mu jëlalee boppam. Hmm. décision boobu nga xam ne nee na def ci xalaat xalaataat ci yàgg na di ci xalaat ba joxe lu mu joxe mais loolu ñun ñëpp dañ ko rafetlu parce qu'il est définitivement entré dans mhm. l'histoire mhm. ndax euh, li mu bëgg a bëgg a gën a laaj en fait mooy maanaam mhm. ndax amoon na ay réunion yoo xamante ni mu ngi doon waajal euh, déjà discours bi mais xibaar bi nga xaman ni dafa bette ndax amoon na ay réunion yéen ak moom en tant que conseil xam nga li ñuy liy dëgg mooy gis nga président Macky Sall xam nga coowu mandat troisième mandat opposition bi mu ngi ko commencé di agiter depuis bi mag faloo Macky falloo 2019 dès le lendemain lañ commencé coow li waaye nag président def ñu instruire woon mu ne gis nga waxu élection ou mandat ou autre bëgguma ci dégg kenn parce que kenn faluñu pour que ñuy discuter ay mandat hmm. dañ ñu falaat pour que ñu liggéey Sénégal bu dee déggal ngeen ma nekk ñoo xam ne da ngeen nekk sama wat di ma jàppale ci liggéey bi ku nekk ci yéen ci la mu war a nekk ci liggéey Sénégal ci tabax Sénégal ci fexe daw ci difficulté sénégalais yi di rencontrer seen liggéey foofu laa ko gën concentré loolu moo taxoon même ci mm. benn jamono wax ji bu mu bëree def ni wax ji lu mu xumb xumb kenn kenn mënuma ci dégg mm-hmm. parce que du sama cër. ñi nga xam ne tey seen liggéey mooy wax. bàyyi leen ñooñu ñu wax. waaye ñun ñi nga xam ne yàlla dafa dogal. ñu teye nguur war a liggéey sénégalais gis ngelawaay la waay bu ñu gisee nañ ñu gis ci liggéey loolu. loolu moo tax aussi mais quoi qu'on dise ci li nga xam ne mooy bilan président de la république mm-hmm. kenn déggul ñu ne deful lii wala laa li ñuy dégg rek opposition bi di wax mooy troisième mandat troisième mandat loolu moo tax d'ailleurs mm-hmm. dernière déclaration yi ñu gisaat encore am ñoo xam ne ñu ngi koy wax du muy lu ñaaw Sénégal mm-hmm. ñoo xam ne ay xale lañ ci politique doora yegsi ci politique doonte man xeebuma seen parti politique xeebuma kenn wante nag puisque suma génération d'accord ñun ñoo jàngandoo. Mm-hmm. Mm-hmm. xamante wax dëgg am na yoo xam ne buy génne ci làmmiñu ñooñu mais daf may jaaxal mm-hmm. trop. d'accord loolu non seulement c'est très bas mais c'est très petit mais mais su ma la déggee ni nga wax en fait sama question bi. pour li ma la déggee ni nga wax dafa mel ne. waxtaan doxul seen diggante jëm ci wàllu troisième mandat. ci wàllu da koy wax wala déet waa en tant que conseiller. non en tant que conseiller pour dire vrai non. ne nag xam nga au niveau du président de la république. dafa am un am. non seulement le cabinet autour du président mm-hmm. am aussi des ministres conseillers am mm-hmm. des conseillers de toute nature mm-hmm. xëy na ñàkkul am na ñu mu ci waxtaanal mais pour dire vrai man mosuma toog ak président mosuma toog ci assemblée boo xam ne dañuy évoquer la question du troisième mandat d'accord d'accord ndax ndax euh, dañu gis nag également bi bi coow loolu amee bi mu waxee li muy wax ba pare ñu gis fële ca siège u euh, APR bi nekk ci Mermoz ñu gis Marème fay Sall euh, dégg nañ sax ci xibaar ci journal Le Monde di wax ni ñaari nit kese ñoo xamoon yi que mën nga jàpp ni si ñaari nit yooyu euh, na si ñu xamoon loolu waaw xam nga man nag je ne suis pas très fort en spéculation mhm. wax yëpp dañuy spéculer xam nga lu mhm. tax mhm. ku président Macky Sall waxul mbir mi mënoo ko xam kan kan la ci waxtaanal moom président de la république moom rek moo ko xam waaye nag li leer te leer mooy balaam bu mu jëlee décision boobu ñàkkul ñaar ñett ba ñeent ñoo xam ne woo na leen wax leen ay kilifa yoo xam ne xëj na waxtaan na ci ñoom wax leen ay mébétam te xam naa président Macky Sall respect bu mu am ci sénégalais yi bu mu am ci kilifa yi nekk ci Sénégal ñu mel ni sëñ Mountakha Mbacké nga xam ni daf ko def non seulement euh, xalifam mais daf ko def papam waajuram kon jàpp naa man sawru ci sama bopp. Mm. Mm. ñàkkul ñoo xam ne président dem na ba ci ñoom waxtaan ak ñoom ci. lu a def kon kon mën nañ jàpp ni kilifa diine seen loxo dugg na ci. waxuma seen loxo dugg na ci. Hmm. waaye nag décision bi président jël. Hmm. jàpp naa ni daal ñàkkul am na ñum ci waxtaanal. Hmm. ba jël décision boobu. parce que décision boobu nag. def di décision boo xam ne décision bu màgg la li tax mu màgg au nekkoon décision bu jafe. mooy que quand tey Sénégal. sénégalais yu bëri. pour ne pas avoir la prétention de dire l'écrasante majorité des sénégalais. jàppoon nañ ni président Macky Sall liggéey bii muy def waroon na ko mën continuer mm-hmm. pour le Sénégal malgré nag les clameurs les mm-hmm. invectives les les insultes et de mm-hmm. tout genre mais ñu bëri jàppoon nañ ni war na mën a continuer liggéey bu muy mm. def wante nag encore une fois de plus comme le président Ousmane Tanor le disait kenn xamul li xew ci boppu président de la République moo mm-hmm. tax bu mu toogee xalaatal boppam mm-hmm. xaj na am ci ñu mu jokkool ne leen man de wax dëgg liggéey bi am na solo réew mi fu mu toll mm-hmm. laaj na leader bu vrai un grand leader wante nag malgré tout ça ma décider bañ a nekk trois euh, bañ a déposer sama troisième candidature nga gis réaction au niveau national mm-hmm. gis réaction au niveau international mm-hmm. Mm-hmm. Sénégal yëpp moo ci jógaat encore nekkaat une nation très respectée te je sais que depuis bu ñu élire président Macky Sall depuis ba léegi liggéeyam yëpp mooy que Sénégal ñu gën gën ko wekk gën ko respecter la preuve euh, président Macky Sall bu mu yegsee mais dafa ànd ak une grande coalition de Benno Bokk Yaakaar mais coalition boobu ñaata yoon la ñu prédire son explosion ba léegi mosul gouverner seul mën nañ wax ni li président Macky Sall mos a wax ak sénégalais yëpp. macha mhm. allah yàlla jàppale na ko mu respecté mhm. ko. d' accord d' accord alors euh, bu ñu gënee avancer un peu mais mais Marième Faye Sall tamit réaction am wala sax comportement bi xibaar bi amee ñenn ñi xaw na leen jaaxal ñenn ñi dafa jàpp ni affaire bi dafa jékki-jékki mel lu daan si koom. daf mhm. ko bett dañu gis mu mu triste en fait dañu gis même bi ñu koy jox téléphone bi mi ngi buux téléphone bi li nga gisee image bu Marième Faye Sall boobu noonu lan la lay jox yow. non écoutez gis nga ñi nekkoon siège APR. c'est des militants mmh. convaincus mhm. aguerris au président de la République mhm. ñu nag c'est sa famille politique mhm. ñoo ñu moom bi président déclaré ni dootul nekk du nekk candidat en 2024 mais sénégalais bu nekk war na mën comprendre comportement wu ñooñu réaction wu ñooñu non seulement xaaruñu woon loolu mais ñoom gis nañ le président Macky Sall détermination bu mu am ci liggéey Sénégal kon président bu jekkee ni léegi mm. fii lay yemale mm-hmm. euh, comment dirais-je euh, magistère am ci boppu Sénégal mais ñu mun nañu comprendre ñu am naxar bu baax a baax a baax ak yeneen sénégalais yoo xam ne sax mm-hmm. bëggoon nañ yegg si siège bi foofu mais jooy yi dañu gis euh, ñu mel ne ay Fouta Tampi ak ñeneen ñeneen ay Rama yi ñu bëri Gaynde yi ay jigéen yu bëri nekk ci siège bi jooy jooy jooy metti di xatraayu est-ce que loolu jar na jooy en fait parce que bu fekkee euh, njiit dafa respecté kàddoom mhm. pour man waroo jooy ndax bu la dégloo yow du respecté kàddoom bu ah. respecté kàddoom jarul jooy pour man non écoutez xam nga mbir mi dafa am li ci nekk mhm. est-ce que ay nekku ci non mhm. dama lay clarifier benn affaire dama ko waxoon lu yàggul dara ci benn émission xam nga laa parole du président du Coran nga xam ne liñ ci bind moom kenn doo ci dolli leneen kenn du ci wàññi leneen non ah mais bi dara la non attends mhm. waaw dara la mais xam nga yow mun nga bëgg dara. Mhm. nga wax ko ci sa kaddu sa njaboot ñëw ne la ñun ñi nekk sa njaboot papa nii la ñu gisee. Mhm. lii la ñu bëgg. mais le fekk nga fekk ci sa njaboot ci loolu aussi loolu c'est pas que que tu ne respectes pas ta parole mais situation moom moo indi li tax nga changer un comportement gis naa fi un président mu sonn ci mbir moom bi waxee dañ leen léegi ku leen wax ne ne leen wax waxee. Ah, mais loolu. Mm-hmm. un humain peut le comprendre parce que aussi le président quoi que solennité soit euh, quoi que la solennité de sa parole mm-hmm. mais comme ni mu la ko waxee léegi il n'est pas un saint. Mm-hmm. mun na en un moment donné mu wax bëgg-bëggam beneen moment ñëw fekk bëgg-bëgg boobu mais correspondrul ak li nga xam ne moo arrange Sénégal ak les Sénégalais. Hmm. bu boobaa aussi l'humilité recommande que mu ñëw mu mu retourner ou mu revenir à ses paroles loolu aussi dañ koy gis mais le président Macky Sall constant comme lui. Hmm. et comme ni mu ko waxee. Hmm. mais def ni non seulement damay respecter ma parole. parce que waxoon naa ko ba pare. te jàpp naa ni sax et c'est ça l'humilité de de ce grand homme jàpp naa ni. am na aussi ay citoyens sénégalais yoo xam ne liggéey bi nga xam ne daanaa ko def pour le Sénégal am na ñu possibilité continuer ko optimiste boobu optimisme boobu mm-hmm. moo tax bëggul revenir sur sa parole waaye bu dee l'engagement mm-hmm. pour le Sénégal le patriotisme au service du Sénégal les enjeux qui sont là devant nous les perspectives tout loolu tout ça pouvait mm-hmm. commander à ce qu'il revienne à sa parole parce que quoi qu'on dise aujourd'hui dans la situation du Sénégal non seulement je parle de l'environnement international avec toutes ces violences tout ce terrorisme mais aussi les enjeux de pétrole de gaz d'or au Sénégal font que le Sénégal quoi qu'on dise dafa soxla un leader averti mmh, un chef d'État très responsable un chef d'État mmh. très respecté par la communauté internationale mais mais mais mais mais décision président Macky Sall boobu sax ñu bëri ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu ngi doon commencé di génn di mel ne lu koy eh, metti loog yooyu ak eh, ñàkk d'accord est-ce que gisoo ni eh, li nga xamante ni moom mooy Benno Bokk Yaakaar est-ce que jàpp nga ni gisoo ni ñenn ñu lu ñuy xalaat naan ci tas la jëm. waaw xam nga dina am courage wala dina am possibilité wu rassembler ñëpp ci benn. benn benn kii yaakaar moom. Mhm. yàgg nañ di prédire que dina tas. naa lii bokkul en fait. waaw mhm. yàlla teg loxoom ci Benno mu accompagne le président. Mhm. dama jàpp ni enjeu yu ma doon indiqué tout à l'heure l'environnement international. la sous-région immédiate. les enjeux d'exploitation de gaz de pétrole et autres dafa recommander. que l'unité nationale soit bâtie autour d'une grande coalition. Mmh. Qu'elle continue de s'appeler Benno Bokk yaakaar ou mmh. qu'elle s'ouvre à d'autres forces. Mmh. L'essentiel pour le Sénégal et les Sénégalais mooy que mm-hmm. nañu fexe ba am à la tête du pays non seulement une autorité capable mm-hmm. de succéder au président Macky mm-hmm. parce que sera très difficile de remplacer un homme comme Macky mais que ñu am de grands consensus forts autour de cette personnalité te ñu liggéey Sénégal mm. ñu ngi wax ni ci ay bés yi di ñëw président Macky Sall dafay euh, dafay defaraat euh, li nga xamante ni moom mooy dafay changer ministre yi delloo ñeneen ñi dugal ñeneen est-ce que loolu am nga ci ay xibaar awma ci benn xibaar mm-hmm. xam nga aussi le président mm-hmm. buy décider mm-hmm. dafay am loo xam ne déjà constitutionnellement ça relève de sa responsabilité président bu mu def déclaration lundi rek. Mhm. ñu ne léegi c'est fini il n'est plus président lu mu neex waaye et cetera non. Mhm. il reste président de la République jusqu'en avril mhm. deux mille vingt quatre. il a la charge et toute la responsabilité de président. jusqu'à ce que mu joxe lenge yi ki koy remplacer à l'issue d'élection libre et transparente kan nga avant boobu nag waaw fi mu toll nii li mu xalaat pour def ko pour Sénégal il le fera si ça s'appelle changement de gouvernement ou autre il le fera l'essentiel est que ci lim ciy def yépp li leer te leer mooy intérêt Sénégal rek la ciy intérêt Sénégal nga ci gis da leen fàtte ni monsieur la ñu dalal euh, waxtaan bi mm. di conseiller spécial à la présidence euh, nekk ci wetu président Macky Sall alors euh, li nga xamante ni bëgg naa la ko laaj un peu ci réunion bi nga xamante ni njort nañu président Macky Sall daf ko war amal ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy leaderu benn bokk yaakaar yi mm. est ci réunion boobu dañuy prévoir wala dañuy xalaat ne président Macky Sall dina am ku mu tabb wala koo xam daf koy proposer à ce que 2024 mu dem parce que 2024 ñëw na en fait. mais ñëw na loolu moo tax aussi. Mm-hmm. di la def déclaration. Mm-hmm. tey mercredi mu convoqué. Mm-hmm. ñëpp ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi. Mhm. ne nag lii xew ci réunion boo xam ne te diire guñ ko mhm. dafay jafe nga daal di wax ni voilà lii la mhm. te bu ma ko xamoon sax du ma ko wax. parce que il faut que ñu dem réunion. ñu xool d'abord li leer te wóor mooy dina jaajëfal ñëpp. pour wane ni. de 2012 à aujourd'hui wax dëggam yàlla ku jóge sa kër. dem gox ba gox Sénégal. di nga tase ak ay réalisation yoo xam ne président Macky Sall moo ko def euh, euh, te euh, loolu moom defu ko moom kese def ko mm-hmm. def ànd ko ak ay gor mm-hmm. kon liy des ci liggéey bi aussi il faut mu partager ko ak ñoom xam ci sept mois yi des mm-hmm. mais naka la ñuy def non seulement pour maintenir le Sénégal dans une dynamique de paix et dans une dynamique d'émergence mais naka la ñuy def aussi pour que moom bu jógee boppu Benno Bokk Yaakaar boppu APR. Mhm. mais ñu amaat encore kenn koo xam ne non seulement dinañ ko. Euh, tàggu foofu mhm. mais ñëpp war a mën na ànd mhm. dans la loyauté dans la fidélité au mhm. président Macky Sall pour accompagner la dynamique bu muy ñenn ñi jàpp ni ñenn ñi jàpp ni euh, président Macky Sall Ba lay tabb parce que euh, ci jaar-jaaram ci homme d'état bi mu doon ñenn ñi njort loolu ñenn ñi tamit di njort Antoine John nag yooyu est-ce que yow bu doon da xalaat profil bi nga xamante ni moom à part président Macky moo war a taxawal benn bokk yaakaar kan ngay choisir yow xam nga aussi man en tant que conseiller du président. Mhm. doo ko doon conseiller donc. Euh, dama ne. gis mhm. nga en conseiller. Mhm. il peut pas être audible. maanaam li muy wax. bu dee day wax ak président wala mu koy proposer. lu ci télé wax dëgg la ko mën a waxee ne wax naa président lii wala man lii laa xalaat li wér te wóor mooy autour du président Macky Sall. il y des hommes de valeur. vous avez cité certains. vous avez omis d'autres. c'est la vérité. wante nag. ci mbir boo gis y a un de destin là-dedans. gis nga ki nga xam ne moom mooy remplacer le président Macky Sall. kooku suñu borom xam na ko ba pare. buñ ko bëggul tooñ moom borom bi. wala sax la président Macky Sall jarul ñuy dugg dans des spéculations dans des calculs dans des conjectures parce que comme Sénégal ñu koy waxee. yàlla noppi na bu yàgg. kon nañu rafet njort. te jàpp ni comme président Macky bi mu fi yegsee ba léegi dafay rafetal. nañu ànd ak moom rafetal. Mhm. képp koo xam ne jàpp naa ni moom xelam jàpp ne kii de bu ko remplacer dina mën a continuer son mhm. man Saourou je sais que ki président tànn. Mhm. duma ci am xel ñaar. dama koy jàpp dama koy jàppale. oui dama koy jàppale sans réserve. parce que damay xam ni. kii nii de li tax président tànn ko. mooy qu'il veut que ambition bu mu am pour le Sénégal ñu continue ñu continuer maintenir ko parce que ambition boobu nag leer na ci ñëpp. mooy tabax Sénégalu jàmm tabax Sénégal bu ñu respecté tabax Sénégal boo xam ne au niveau international comme au niveau national day nekk un pays boo xam ne ñëpp a ko wekk ñëpp ko koy fi ñu daanalee loolu ci balaa ñu dugg ci benn pàcc ngi daanale ko waxtaan bi euh, ci mbiru ki nga xamante ni moom mooy euh, maanaam tey ci ngoon à partir de 17h. Euh, maanaam waa APR yi sax laa ko mën a tuddee wala benn bokk yaa dañuy joxe rendez-vous fële ca palais ba. ñu sax du ñàkk ci kanam war nañ fa dem pour xool mbir mi naka la demee mais loolu lan moo ko fi jar pour man est-ce que jar na ko en fait. waaw xam nga dañuy wax d'habitude ku def lu rëy am lu rëy. Mm-hmm. loolu du loo xam ne dañ ko programmé. Mm-hmm. ce n'est même pas seulement des gens de Benno. Mm-hmm. c'est des Sénégalais. spontanément. ñoo apprécier le geste du président ne ñun nag dañuy dem ba palais donte du ñu gis président wala leneen wala boobu ñu gis ko. ñu taxaw palais wane suñu mbégte tàcc ko loolu aussi c'est historique au Sénégal. parce que loolu kenn mësu ko gis. kenn mësu ko gis sénégalais ne non ñun président Macky Sall li mu liggéey Sénégal. Mm. ak fi mu toll ci Sénégal. Mm. waroon mën a laaj troisième mandat malgré le bruit mu taxaw ne teg na lépp non il faut ñu dem jaajafal ko. Mm. woon ko ni yow de wax nag dootuñ la fàtte ba fow kon loolu. que mu am un élan solidaire un élan national parce que bu ñu ko waxee woon nii nga ko waxee nii. ne mm-hmm. dañuy programmer pour que nit ñi dem sargal Macky Sall je crois que zone boobu yëpp nit ñi duñ fa xëj. parce que mm-hmm. di nga gis sénégalais yu jóge à l' intérieur du pays mm-hmm. rien que pour ñëw sargal son excellence le président Macky Sall. d' accord fi ñu daaneel waxtaanee mooy mbiri Ousmane Sonko. jamono ji bu ñu ko tegee ci wàllu yoon mooy maanaam du bokk. est ce ci bu jaree ci stabilité dëkk bi. ngir ñu daal di fexe euh, ba président Macky Sall am day faral yoo xam ne dossier yoo xam ne bu ci teg sama conc est-ce que gisoon ni mbiri Ousmane Sonko président Macky Sall war na ci mën a teg concam bu dee dafay indi euh, jàmm ci réew mi gis nga mbiru Ousmane Sonko mhm. dama jàpp ni dañ ko politiser à outrance ah bon ah li tax ma jàpp ni dañ ko politiser à outrance mhm. waaw monsieur Ndiaye mhm. nit ki toog ba vingt deux heures mu dem fekki xale bu jigéen xale bu jigéen boobu accusé ko de viol. Mhm. lu ci politique boobu. non mais daanuñu ko non c'est une affaire de la jeunesse moi dama la ni c'est une mhm. affaire purement privée. Mhm. gis nga loolu président Macky Sall mënu ci wax lenn. lu dul bàyyi justice mu def yoonam. comme justice def na yoonam gis nga loolu justice décidé. dañ koy appliquer. Mhm. ça c'est très clair. Mhm. parce que mënuñu créer un précédent dangereux dans ce pays-là. Mhm. dire qu'il y a des justiciables. et des non justiciables parce qu'ils ont des responsabilités politiques. gis nga loolu mënul am dans aucun pays responsable. loolu moo tax ma jàpp ni. coow li lu mu bëri bëri bëri. la justice sénégalaise elle est restée sereine. parce que d'aucuns le disent le temps du le le le temps de la justice. ce n'est pas ton temps ce n'est temps. mais bu ñu xoolee ci fee yi nga baal ma ci kàddu bu ñu xoolee ci fee yi ndax jamono bi président Macky boo na dégloo démb ci discours am daana ko dana ko junj ndax nee na enquêtes yi dañu koy wéyal mhm. euh, ci enquêtes yi nga xamante ni boo xoolee 2021 la fi jotoon am euh, ci 14 morts yi aboutir wala bokk pour l'instant amagul benn daan bu ñu ci gis mhm. ñuy ubbiwaat beneen enquête ci ñenn ñi jàpp ni mbiri Ousmane Sonko wala ñuy traqué waa Pastef yi bu ñu xoolee ci euh, ñu bari si ñoom jamono bii ñu ngi ci loxo yoon surtout ñu ko gën a jege est-ce que loolu dina dina faciliter. gis nga bu dee dañ d'accord ni waa Pastef lañ traqué. Mhm. ça veut dire que waa Pastef ñoo nekk à l'origine des violences. ah bon non dama la ni bu dee noonu lañ ko jàppee d'accord mhm. parce que. Mhm. un état responsable. nga ñëw yàqal ay sénégalais. am ñi ci dee mais l'état ne peut pas croiser les bras. yooyu il faut que les enquêtes montrent qui a quoi hmm. loolu moo tax man jàppuma Pastef jàppuma keneen dama jàpp ni y a des gens hmm. qui ont été des bandits de grand chemin hmm. qui ont partout détruit qui ont tué gis nga ñooñu un état responsable il faut mu xam ñan la pour mettre leen hors d'état de nuire loolu pour man c'est évident Mhm. loolu moo tax dans le discours de son excellence mhm. ça aussi participe de sa responsabilité lui en tant que chef de l'exécutif mhm. mu fexe enquête yooyu ñu continuer ko ba situer toutes les responsabilités afin que les coupables soient punis conformément à la loi. en tout noonu la. loolu nga jàpp. en tout cas ah, bëggoon nañ ko gën a yaatal mais du ñàkk comme yow da nga defoon da nga jugee euh, euh, mm-hmm. euh, ñëw di noppalu pour xéewlu pour delluwaat. jàdd fi def ak ñun émission en tout cas ñun dañ siy kontaan bu baax a bu ñu jël sa temps xam naa ne certainement on aura le gën a yaatal. Mm-hmm. waxtaan yi après du ñàkk réunion beeg yooyu. ci topp waaw incha allah en tout cas mm-hmm. la ci man ñëw bokk seen plateau gisee mhm. mhm. euh, ak wax ni rek euh, encore une fois de plus euh, mhm. li mooy Sénégal lu xew rek ñu leeral wanne nag nañu fexee ba ñi am xam-xam ci mbir mi ñu mën leen jox kàddu ñu mën di leeral li nga xam ne moom la askan wi di xaar ci ñoom ci wax ji nag bu dee am na lu ci dëng maa ngi ciy jéeglu bu baax a baax parce que du luñ ma yare wande encore de plus gàcce nga laama à son le président Macky Sall mmh. mi ngi noonu en tout cas ñun tamit mbégte bu baax a baax la ñu am dalaloon fi ki nga xamante ni mooy euh, monsieur Saourou Sène Saourou wala Saourou c'est Saourou Sène turu séeréer la xanaa. Euh, bon bon bu nee nañ turu pël la. ah saw sawru seen euh. conseil spécial à la présidence de la république moom la ñu dalaloon tey ñu seetlu nag ma waxtaan ci émission bi nga xamante ni mu tudd gisee euh, ak xam naa nag bu ñàkk dinañ yaatal beneen yoon bu ñu occasion gën a waxtaan ci yeneen i ponk en tout cas mu nekkoon Mouhamed ci réalisation bi assisté par Zeyna nekkoon Basir ci coordination bi nekkoon Ousin ci présentation bi jaajëf.